الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته bokki jullit yi bokki déglukat yi gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak i saxaabaam dellusi si neen ci seen émission kalimatul xaq seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Valérie tey ñu bëgg a waxtaane histoire Sayyiduna Muhammad digganteem ak nasaraanu Najraan mbokk yi ahlul kitaab bu ñu ko waxee moo di yahuud ak nasaraan yahuud moo di taalube yonent yàlla Muusaa yi nasaraan moo di taalube yonent yàlla Isaa yi ñu gën ko miin ci jésu ñaari capital ñoo amoon benn capital bi Yathrib leen koy wax mu di madinatul munawwara foofu la yahud yi nekkoon taalube yonent yàlla Muusa yi Najran bi nag moo di dëkk bi nga xam ne moo doon capitalu chrétien yi ñoom foofu la ñu waaye ñaari dëkk yooyu yépp ñu ngi ci bilaadul arab maanaam ñu ngi ci réewu arab yi soo gisee nag loolu am moo di ne képp kenn ci nasaraan ak yahud jàng nga ci sa téere ni am na yonent buy feeñ mu jóg jamono te ci gox boobu lay feeñe looloo tax ñoom ñépp ñu daldi daw gurbaloo foofu moo tax yahud yi nag nekkoon ñu am doole ba daanaka boo dee xool medinatul munawwara ak ci shimalu xijaaz daanaka yahud yi ñoo occupé woon foofu dëkk yu bari ay dëkk yahud lañu ñoom ñoo ko occupé ñoo leen colonisé moo tax kaana zannu an la yaxtalifa mawqifu nasara najran min al islam an mawqifi yahudi shimal wa haulaai wa ulaika ahlu kitaabin yatluuna altawrata wal injil wa yusaddiquuna bi risalati sama ñu ne foogoon nañu ne nasaraan yi ak yahud yi duñu wuute mukk seeni position ci ni ñuy teeroo yonent bi ndax danañu ko gëm wala duñu ko gëm waaye gis nañ ni ni yahuud yi gënee soxor ci jullit ñi gën a contre l'islam gën ko bañ wax ne ne chrétiens yi ñoo leen ci tane ñu ëpp yërmande loolu tax boo xoolee yahud ya dëkke woon Madina ni ñu jëfeek yonent bi bokkul ak nasoraan ya nekkoon ca Najran gis ne ni nasaraan yi nekkoon Najran ay arab leen woon waaye gëmoon nañu yàlla jàpp seen diini di ko toppatoo tey sellal amoon nañu ay kilifa yu baax yoo xam ni ay xol yu sell lañu yor mokkoon lool ci jàmm yàlla te dëddu woon àdduna loolu leen leen xame yahudu najran ak mbaax leen leen xame dëggu ci diine leen leen xame ak sellal leen leen xame ñoom nasoraanu najran mooy chrétiens yi dëkkoon najran waaye yahudu yathrib ñoom eh, ñu sàggan leen woon ci seen wàllu diine te itam li ñuy wax euh, nafiq moom la woon ndax dañ doon feeñal ne yonent yàlla Moussa la gëm waaye seen gëm des na li la koy wan moo di yuxarrifuuna al kalima an mawaadiihi téere tawreet la ca nekk ci atte saabu atte masaana ñëw dal ci borom alal danañu soppi at ba ba woyofal ko waaye bu dalee ci baado la ñu appliqué atte ba ba mu jeex loolu nag yowutu euh, nasaraanu najran daawuñu ko def waaye histoire euh, feeñal na xew-xew bu metti boo xam ne nasaraan yi duñ ko fàtte bu mukk mu doon diggante nasaraan yi ak yahut yi te yàlla di ko nettali ci suuratul buruj ñaari xew-xew nasaraan yi mënuñu ko fàtte ci seen digganteeg yahut yi bu njëkk bi moo di lii xew ca nasaraan te moo di ñi ñuy tuddee asxaabul uxduut ak itam lañu defoon Jésus te moo di bëggoona a bakkanam te yàlla yéegal ko ñaar yooyu nasaraan yi duñ ko fàtte dëkk bi ñuy wax Najran dafa am benn chrétien bu fa dem nekk chrétien bu baax am diine ju sell di ko sellal nekk fa di jaamu boroomam ñu tabaxal ko benn église ci wetu dëkk bi mu nekk fa di jaamu yàlla waaye dëkk bi mu nekk di Najran ay jaamukatu xërëm lañu ndax ñoom benn garabu tàndarma lañu gëm moom lañuy ñuy jaamu at mu ne ñu feetal ko màggal ko waaw moo tax mu ne eh, am na benn xale boo xam ne baayam daf ko wutaloon sëriñu daara bu koy jàngal waaye sëriñ ba nag dañ ko tuddee sëriñu daara waaye ab jibarkat la maanaam dafa yebaloon doom ji ne ko saa boo xëyee nanga dem ca jibarkat bële mu am secret yum la déy ci wàllu njibar doom ji itam saa bu xëyee rek yenu alwaam dem ca jibarkat ba falay lay toog tabarkàlla di ko tarbiyu pour mu jox ko ci xam-xamu njibar xam-xamu njibar xam-xam bu yàlla ŋàññi la xam-xam la boo xam ne yàlla nee na ku ko jàng doo dugg àjjana laa yuflixu saaxiru xaysu ata moo tax lépp lu jëm ci wàllu magie daw ko mooy tëndiku ko bu la ci kenn dugal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nag di dem foofu ci jabarkat bi di fa jàng njabar gi waaye nag saa bu ko bàyyam yónnee dana romb église waa jooju ñuy wax Abdullah ibnu Thamir su fa rombee dana ko dégg muy tudd yàlla ca kaw di ko bàkk ci turam yu màgg yi mu jàng ci injil waaye xale bi saa bu rombee euh, labbe boobu ci biir église bi xolam dootu ko mayeti mu dem ndax waa ji ni mu taxawee di julli ak kàddu ya muy wax dafa neex ci xol xale bi di ko déglu di ko déglu ba jikk rekk mu daldi mujj ñëw jébbalu si ca nasaraan ba gëm ko ànd ak moom loolu daf leen di won ni bu njëkk diine yépp wéroon nanu moo xam diine yahud bi la walla diine nasaraan bi wéroon na yàlla nangu na ko ku ci jaare jaamu yàlla dugg àjjana waaye bi diine sayiduna muhammad feeñee mu di lislaam ci la diine yooyu yàqu lu tax ndax seeni yonent dañu wëllërante woon ak seeni taalibe ne leen saa bu yonent boobu feeñee nangeen bàyyi li ma leen joxoon topp ko waaye waa ji ñuy wax abdullah ibnu thamir ak aktharu arabi najran nee na ci loxoom la nasaraan yu bari maanaam ci arabu arab yi dëkki woon ci loxoom la ñu duggee ci diine gi dégg kon daanaka liggéey na fa liggéey bu rëy ba ci misaal danga naan maam borom Touba ak Sidi Hadj Malick si liggéeyee ci Sénégal ba dugal ceddo yu bari ci diine moom Ablaye ibnu Thamir noonu la liggéeyee ci dëkk boobu ñuy wax Najaraan waaye bi nga xamante ni kàccoor bu bon ba dégg na ne arabi Najaraan nekk nañu ay chrétien te moom mu di ab juif di yahud ndam loolu yéenewu ko chrétien yi loolu tax mu daw moom Zunuwas mi ànd ak soldaar yu bari jóge yaman yahud yi jox ko ay ngànnaay ngemb ko ne ko demal nga tubbiloo ñettu bon dugg ci diine nasaraan moo tax bi mu ñëwee daahum ila al yahudiya wa xayyarahum baynaha wa bayna al faxtaaru an yamuutu ala diinihim wa amara zunuwaas junuudahu wa kulluhum yahuud fa xafaru uxduudan amiqan wa awqadu fihi nnaar wa siiqa ulufun min annasaara almuminin fa uxriqu fi luxduud walmujrimuuna muxiituuna bihim yaqtuluuna kulla man yuxaawilu yuxaawilu alxilaasa min annaar darban bi ñu ni Zunnuwaas mi bi mu ñëwee e, yëngal na dëkk bi te moo dina liggéey bi fii Abdullah ibnu Thamir def ci yaatal diine nasaraan naqari na ko ndax moom ab yahud la naqar boobu moo leen jàppoon ci yonent yàlla Isaa ndax bi mu yëngatoo diineem nar a fay seen diine ci leen jóg nag di ko fexeel looloo taxoon xawaari yoon yi ko waroon nekkoon fukki xawaari yoon ak ñaar xawaari yoon yooyu ka ko ca gën a jege daanaka moom moo trahir yonent yàlla Isa ndax ba ko gaa yi dee seet moo leen wax ni xam naa fi mu nekk ñu ger ko alal moom moo mat gaay yi ne leen néeg bi may dugg fa la nekk su ma duggee rek ngeen xam ne ci néeg boobu la nekk wax na tëgg ndax bi ñu ko toppee yóbbu na leen ba ca néeg ba yonent yàlla Isaa nekk waaye comme moo leen jëkk a dugg dafa dugg rek moom waa ji malaaka yi yéegal sayiduna Isaa yéegal nañu Jésus daal di jël nag image yu Jésus daal di koy koppi ca waaja waa ji daal di génn nag ne ah, dugg naa ci néeg bi de waaye fekkuma ko fi xam naa ne dafa génn ñu ne ko déedéet yow yaay Jésus yow yaay Isa mu ne déedéet du man ñu ne ko yow la ah yow xanaa sëñ bi yow yàlla yoon yónniwu la yow kat yaa ngi commencé ñàkk euh, sa sago di ñàkk tabarxal xanaa tiit tiita la jàpp ndeke booba tabaarakallahu yàlla yéegal nanu maanaam yàlla yéegal na Isa ndax yebal na malaaka yu ko jël si waa jooju nag lañu jël image yu Seydina Isa def ko ci kanamam ndax yéene néeg la borom a cay fanaan kooku lañu daj ci croix bi loolu la alquran wax ni wa ma qataluuhu wa ma salabuuhu walakin shubbiha lahum nasoraan yi duñu mën a fàtte xew-xew boobu waaye duñu mën a fàtte itam xew-xew bii Zunuwaas dajale na nit ñi ci pénc bi ne leen dama bëgg ngeen bàyyi diine nasoraan ñëw ci diine yahud maa ngi leen di tànnuloo ñaar benn ngeen nangu bàyyi tubbi génn ci diine nasoraan ñëw ci diine yahud ma bàyyi leen bàyyi leen ak seen jàmm wala ngeen lank ma rey leen kenn par kenn ba ngeen jeex waaye waa dëkk ba ci seenug ngëm ak seenug sellal ak itam euh, liggéey bu rëy bi nga xam ne Abdullah ibnu Thamir def na ko ba ngëm sax ci seen xol tax na ñoom itam ñu lank ne daal dee leen gënal génn ci diine nasoraan ñu daldi gas nag ñoom ay kàmb yu xóot def ci ay mat sotti ci pétrole taal ko bu muy jër jëri ñu dajale lu tolloog ñaar fukki junni ci ay góor ki jigéen yu gëm di leen dugal ci safara woowu kenn par kenn loolu taxoon na tabaarakallahu xolu jullit ñu bari sot ndax képp koo xam ne aji gëm nga boo gisee ñuy sonnal ku gëm ni yow mu metti la ndeke ni mu mettee way gëm ñi noonu la mettee yàlla ba xew-xew boobu yàlla fàttewu ko ba bi yonent bi ñëwee mu nettali ko ci alquran ci suuratul buruj keroog rey neen fa ñu bari ci way gëm ci jigéen ñi ak góor ñi ñuy dugal kenn par kenn léeg-léeg nga gis koo xam ne tiit na ndax jàkkaarloo nag mbokkam ñu sànni ko ci taal bi mu lakk ba xam mu leer ko ne moom leen ciy teg mu ne waqet daw waaye bu dawee ba foog ne génn na mbooloo mi nga gis ku ko dab dóor ko jaasi mu daanu deret jay sotti mu yëkkati indi ba tiimtaal bi dugal ko ci moo tax mu ne wal mujrimuuna muxituuna bihim yaqtuluuna kulla man yuxaawilu alxilaasa min annaar darban bi sayf xew-xew boobu metti woon na waaye ndeke yàlla balaa nangu gëm ne nit ki gëm na ko fokk mu natt ko ba noppi seet ba xam ndax ngëm nga dëgg la wala déet defe naa ne natt boobu àggaguñu ci waaye léeg-léeg sax yàlla xool fuñ ko toll ci tabaarakallaahu waxtu juróomam yi waaye dañuy gis ne rekk suñu bakk nañu gënal yàlla léeg-léeg itam commerçant bi topp wutum alal ba du tala julli juróom yi waaw léeg-léeg itam ku tàyyeel ci topp yi nelaw ba lu ba ba sàggane waxtu yi yooyu yépp ay nattu la yu yàlla di xool jaamam yi fan la tollu ci jaamam yi waaye nanu xam ne am na ñoo xam ne yàlla nattu na leen ci dee ak li di metti metti ak li di ñàng njàng song nanu dee ngir mën a jubóog seen boroom mbooloo mi bokk nanu ci di asxaabul uxduud nee mbooloo moomu la yàlla di nettali ci alquraan ne wassamaai dati lburuuji walyawmi almawcuud wa shaahidin wa mashhuud qutila asxaabu luxduud annaari dati lwaquud id hum calayha qucuud wa hum cala maa yafcaluuna bilmuminina shuhuud wa ma naqamu minhum illa an yuminuu billahi alcaziizi alxamiid alladi lahu mulku alsamawati wal ard wallahu ala kulli cheyin chahid inna alladina fatanu almuminina walmuminati thumma lam yatubu fa lahum adabu jahannama wa lahum adabu alxariq borom bi subhanahu wa taala mu ngi giñ ci asamaan waaw di giñ itam ci kër yi nga xam ne asamaan am na ko te planète yi di ci toxo moo tax mu ne wasamaa i maa ngi giñ ci asamaan yi zaatil buruji ya di boroomi kër ñu ne asamaan eh, am na fukki yoon ak ñaar yoo xam ne ci la kawaakib yi di daw moom la ñu tuddee al buruj buruj yi fukki burju la ak ñaar yàlla giñ na ci asamaan ngir màggaayam ak li mu ëmb ci kéemtaan wal yawmil mawuud yàlla giñ na ci bis pénc ba ndax moo di bisu rendez ak jaamam yi ña ca dëkke kaw ak ña ca dëkke suuf malaaka yeeg jinne yeeg nit ñeeg ñépp seen bisu rendez ak yàlla moo di yowmal xiyaam mu tuddee ko bisu rendez-vous ba loola tax mu ne wal yowmil mawuud mu bis mu giñaat ci ñaari bis yu màgg mu di bisu arafa ak bisu aljumma lu tax ndax bis la boo xam ne nit ñi dañ jullit ñi dañ ciy daje waaw duñu wax nit ñi dañ ciy daje waaye jullit ñi ciy daje ñi bëgg yàlla te sopp ko te gëm ko dañ ciy daje mu di bisu arafa ak bisu aljumma mu giñ itam ci seenug màggaay ak seenug tedd nga ndax ñaari bis yooyu dañoo màgg te tedd moo tax ñu ne alxaju arafa waaw ku tàdde arafa amuloo aj mu ni looloo tax itam ñu ne bépp jullit boo xam ne toog na ñetti ajjuma yum julli jiwul juma kooku def na erreur bu rëy def na musiba bu rëy rëy boo xam ne xaw ma fu mu koy layoog boroomam moo tax yàlla ne wa shahidin maa ngi giñ ci bisu àjjuma wa mashahudin ak bisu arafa waaw lu tax mu giñ ci yi ba noppi lu tax mu giñ ci ñett yi giñ na ci màggaayu asamaan giñ ci màggaayu bis penc ba giñ ci màggaayu aljuma giñ ci ba màggaayu bisu arafa lan la bëgg a nettali moom yàlla mu ngi bëgg a nettali rekk ne ñi woon samay Eh, eh, samay niti bopp gëmma rekk tax ñu gas ay kàmb di leen ci dugal ñooña de xamuñu ne bis dina ñëw ñu dajeek man waaw te moo di bisu yomal xiyaam maa ngi leen di xaar moo tax yàlla bokk na ci turam xaliim xaliim mooy ku dëniirlu mooy koo xam ne yàkkamtiwul ndax xam na ni ki ko tooñ dana yàgg yàgg dana dajeek moom waaw waaw ñuy wax naan jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg yàgg daje waaw loolu euh, yàlla principe boobu principe bu yàlla la yàlla moom xam na ni yàgg yàgg moom ak jaam bi danañu daje moo tax bu ko dee mooy walla muy beew di tëb di dal itam da koy seetaan rek yu koy seetaan rek ndax lay lay gis rek ci cëpp lay mujj waaw lay lay joo ci cëpp lay mujj Namrud fi la nekkoon doon layi layi nee na cëpp kenn xamatu ko bu yàlla nettilu woon histoire am kenn du ko xam na fi la nekkoon doon layi layi anamu ana Hitler mi doon layi layi ñoom ñépp xëy nañ ne cëpp waaw moo tax yàlla tudd xalim moo tax bu jullit ñi masaana xaw a yéemu sax ci ni yéeféer yi di moye yàlla seen wërsëg di gën a yokk seeni mbir di gën a baax yàlla ne déedéet lii la lahum li yazdadu isma waaw dama leen di ndànk rekk pour seeni bàkkaar gën a bari ba bu ëllëgee duma ya gën a metti ci ñoom moo tax yàlla ne qutila rëbbeef na asxaabul uxduudi nee na boroom kàmb ya ña gasoon kàmb ya doon suul sama jaam yi de di leen lakk ca safara wa rëbbeef na leen maanaam rëbbum yàlla mu ngi ci ñoom ndax ñoom asxaabul uxduud ba nga xamante ni kàmb ya nga xamante ni annaari moo di safara wa daatil waquudi ba di boroomu tàkk-tàkk safara woo xamante ni mu ngay jër-jëri ca kaw waaw nga ni sëq nit ki sànni ci biir mu lakk ba xëm waaw yàlla nee rëbb naa mm, yahud yooyu doon def loolu nee na bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñoom kat ñu nga toog wër safara wa ñu jëlee ab jullit sànni ca safara wa mu lakk ba xëm ñu xaqataay ba jaaxaan waaw ngirug mbewte rek